yóbbu ci kase boobu jur grève de la faim mm. grève de la faim boobu tey jii ñi ngi naan mu ngi ci diggante dund ak dee mm, euh, yàlla na vraiment taxawu ko amiin waaw taxaw ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci biir kase bi mm. mais en tout cas une chose mooy que lii nga xam ne moo dal Karim Xoox dal ko dal Cheikh Oumar Diagne dal Ousmane Sonko mbir la bi nga xam ne mooy lay wan ni ko ñun suñu démocratie mu ngi sooxe. d'accord sunu démocratie fu mu ne nii da naka nërmeelu na. Mhm. parce que ñuy ngay wax fii ñoom ñëpp. ay mhm. porteurs de voix nañu. mooy maanaam dañu am xalaat am ay parti am ay mouvement yoon may leen ñu war a taxaw ci dëkk bi di wax. d'accord ndax neex na wala neexul. Mhm. baax na wala baaxul ñooñu ci loolu lañ leen jëlee dugal leen ci kaso bi. d'accord voilà. Euh, ñu dem ci moom Mamadou Goumbala euh, Ousmane Sonko fi mu ne mi ngi ci mi ngi ci mi ci grève de la faim boo xam ne da cee delluwaat sax. ba nekk fi mu ne nii dans le coma ni ñu ko waxee léegi nag euh, bu fekkente mbiram mbiram mu mel ni ñu ngi koy woyofal ak di ko sàggane euh, bu ñu demee nag sécurité réew mi da cee aju moo tax mënuñoo wax ci politique mënuñoo wax te duñ ko tudd fi mu ne bu ñu demee ba toll foo xamante ni alors dafay sànku wala mu am fa benn jafe-jafe Sénégal dugg ci beneen kii ndax bañoon rek mu bokk wala bëggoon koo xeex ba. mu disparaître doon na ko jar lan nga jàpp ne fi mu toll nii noonu la war a def ngir pacifier espace bi ba ñëpp mën a bokk ci élection yoo xam ne nii ci jàmm ak salaam sénégalais yi ñooy xool ku leen ci neex ñu fal ko mu jiite seen réew euh, ci loo xam ne nag euh, vraiment du dugg réew mi ci benn guuta <coughs> Pape Makhtar hmm. lii ma laaj daanaka mën nañ cee def émission hmm. fii nu toll hmm. ba heure bi dellusiwaat Ousmane Sonko lii mu nekk léegi di def grève de la faim. Mhm. man d' d' accord je préfère un héros vivant qu'un héros mort. Mhm. je répète je préfère un question boobu jeex na. Mhm. d' accord mu ci. deuxièmement Ousmane lii mu bëgg a def boo ko seetee dëgg-dëgg héros yi ñuy santé fii Sénégal yépp amut kenn ku ko ci def. boo seetee ñi fi jaaroon buur yi buur boo fi gis mu doon xeex ndoom ak tànk gu mu yoroo di ci nguuru personnellement moo taxoon muy xeex mais c'est pas pour l'amélioration des conditions de vie et de liberté de ces sujets loolu taxutoon muy xeex Ousmane Sonko nag lii mu yëkkati dafay lu rëy a rëy rëy parce que dafa yëkkati une libération totale du Sénégal Sénégal génn ci loxol nasaraan bi. Mm. économiquement socialement et même culturellement loolu la bëgg mooy système bi. Mm. wax naa ko ci benn émission. Mm. boo bëggee changer système bi CFA day dem. accord yi ñu def ak France day dem. -hmm. boo bëggee changer système bi la la coopération bi ñuy def sous plusieurs formes day dem. -hmm. boo ko bëggee changer FMI ak euh, yi yëpp. il faut nga dindi ko mm-hmm. Sonko loolu la bëgg a dindi mm-hmm. loolu nag ku ko bëgg a dindi faw nga am ay jafe-jafe mm-hmm. yoo xam ni sa sabkan mën na cee xaj faw nga am ay jafe-jafe yoo xam ni Sénégal fii mu ne boo génnee ñi nga xam ne da ay tappale ñuy dundee ak i njuuñ njaañ nga ne de comme fa fii génne mais tu vas éliminer combien de personnes ñooñu ñëpp la sonk dëkkandoo boo leen dëkkee nag faw mu metti faw mu metti ñooñu ñëpp nag ñoo dajaloo en utilisant le pouvoir politique le pouvoir économique et les forces occultes du Sénégal dont on parle yoo xam ne di ci Sonko sax ci ñoom la. ñooñu li ñuy utiliser braque Sonko ñoom ñëpp ñu attaqué Ousmane Sonko attaqué waa Pastef attaqué les démocrates sénégalais donc faaw mu metti hmm. loolu moo tax xeexub Sonko bi daf dana metti ci moom dana metti ci ñu koy porter. plus tard dana metti ci waa réew mi bala noo moom suñ bopp parce qu'on sa baax pour une seconde indépendance qui est une indépendance réelle parce que indépendance bii ñu jëlee jóge bii nu nekk mhm. c'est une indépendance fictive ndax am na yu tubaab yi jox am na yu ñu joxul y'a onze accords yoo xam ne yi ba tey man déggaguma ñu dénoncé ko mm, muy accord yi franc CFA ci la. Mhm. jàng tubaab la langue française ci la. Mhm. yolomal nañ ko ne waxatuñ ci dara mi ci la. Mhm. former les officiers sénégalais en France ci la. bu ñuy jënd ay armes ci la. en France lañ ko war a jëndee bu ñu ko jëndee wut France ñu seet beneen réew France ne dem leen fële jëndee ko fa. deuxièmement le vote du Sénégal aux Nations Unies. ak yeneen ak yeneen fàtte nga Malouine. Angleterre bi muy xeex ak. Euh, Argentine. Euh, ci ci l'archipel de Malouines. mais président bi fi nekkoon je crois que c' était Senghor xaw ma Diouf mais dafa amoon ay réticence mais France da ko ne attention bàyyi ko Angleterre c' est notre partenaire éternel bokk ak ñun bu bëggee utiliser euh, c'est mili euh, xam nga avion bu dem mal Malouine jóge Angleterre bombardé amutoon il fallait une base militaire d'appui booy jaar ravitaille ak yooyu mais dañ ko ne bàyyi ko Sénégal euh, fii la gars jaaroon di dem bu ñuy bombardé Tchad avion français yi fii lañ jóge mhm. te Sénégal mënu koo bañ mhm. y avait les bases Sénégal yi Wade jë euh, kii woon sax mais teewul gars yi del siwaat y mhm. tous ces accords qui nous lient yooyu yëpp la Sonko bëgg a balayer d'un seul coup donc dafay metti Sonko ma fait penser quand je parle euh, je le compare au héros français héros français héros des français mm -hmm. pas nous parce que général de Gaulle ku ne xam ne c'était un abominable colonialiste mm -hmm. mais ku ne xam ne gis na li defal France mm-hmm. et li ko coûté ku ne na ko aussi mm-hmm. il a sacrifié toute sa vie pour la France mm-hmm. deewu ci nag tu prends Napoléon Bonaparte à cinquante un ans il est mort euh, xawma aux îles euh, kii aux Antilles. Mhm. mais lépp loo gis Paris Napoléon Bonaparte moo ko tabax. Mhm. finalement il n'avait même pas de vie de famille danoon xeex ak la royauté yooyu ba installé loolu. Mhm. Sonko li mu bëgg a tabax il faut mu metti léegi nag. système bi nee nañ Sonko ne s'inscrit pas dans la logique du système. est-ce que xam li ma la wax. il ne reconnaît pas le système il ne reconnaît pas les lois du système donc les lois du système ne lui garantissent rien loolu mooy problème bi. est-ce boo nee démocratie ñu applique ko euh, euh, euh, Sonko mais duñ ko ko appliquer. Mm-hmm. parce que il se disent que Sonko ne reconnaît pas nos lois démocratiques la mm-hmm. qui certes son des lois démocratiques pour eux mais pas pour tout le monde. Mm-hmm. ndax ñoom boo àndee ñoom ñoom la neex def boo àndut ak ñoom. comme je peux le dire nous sommes tous en sursis. Mhm. qu'est-ce di man bu mu génnee fii duñ ma kar ak yooyu parce que li may wax du leen neex. Mhm, mhm. dañ lay defal ay sar tëgg la ci kaso bi. donc Sonko sa bat pour enlever ce système. d'accord ku ko yebu xam ko ku ko xamut dana metti intérêt bi nag. mooy Sénégal yépp jàpp ci. ku ne bokkuma ci rek dafa yegg seegu ci yow ndax yegg se ne ci yow sax. éducation santé yooyu yépp sooxe na. Euh, le coût de la vie mmh. électricité loyer mmh, ak yeneen ak yeneen ana ministre bi dugal nu mille tenues un diggoon ci eh, eh, eh, bu école tëjee ana tenues yooyu fu mujj boo demee génne nañ xaalis bi bu yàgg xaalis bi jaar ni <laughs> ndax cent milliards yi ñu génne woon pour na euh, pour gerte gi gaa yi koy daañ ci ci ñëwaat léegi xool parce que le système est le monde te Macky hmm. ci ñëwaat daañ ci ñëw peut être ñu jeexalee ko peut être ñu jeexalee ko ndax hmm. euh, Ba wax na ne Mamadou Moustapha Ba cent soixante six milliards deux mille vingt quatre ko xaar yooyu yëpp nag xam naa ne peut-être dinañ demante rek bàyyi Sénégal ci ay bor yoo xamante ne euh, yeneen beneen affaire la dinañ ci ñëw xam naa peut-être bee di ñëw bu jeexul ñeegale ko euh, Fatou Fall euh, lii bu dee cas professeur Cheikh Omar nga xam ne ci ñun la bokk moom